Bonjour chers auditeurs de Rewmi FM, bienvenue dans votre émission Encre et la Plume. Euh, l'émission que la radio vous propose euh, chaque samedi à partir de 9h. Nous recevons ce matin Mansour Ndiaye, le secrétaire général de la CEDEFS qui est la coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal. Euh, monsieur Ndiaye, bonjour et merci d'être là ce matin à Rewmi FM. C'est moi qui vous remercie, euh, Merci beaucoup. Bonjour à les auditeurs. Euh, oui, comme vous l'avez dit, c'est général national de la CEDEFS, Coordination démocratique des enseignants et du Sénégal, mm -hmm. un syndicat mhm. euh, euh, sur le terrain, mais on, on l'a récupéré à partir de 2016. Mhm. Et 2016 jusqu'en 2019, on a fait notre Euh, celui qui a créé le syndicat est décédé en On a fait notre premier congrès et j'ai élu en comme secrétaire général national de ce syndicat. D'accord, mais dites-nous qui est Mansour Ndiaye euh, oui, Mansour Ndiaye, c'est un enseignant. J'étais enseignant pratiquant, j'étais sur le terrain, euh, enseignant depuis J'ai été affecté à l'IF de Bombay, euh, dans l'IA de Djourbel. J'ai fait là-bas 5 ans, ans. Ensuite, j'ai été affecté à Dakar, où j'ai fait 12 ans à l'école Route des Puits à Grand Dakar. Euh, après ces 12 ans, j'ai été euh, sorti de classe comme permanent. J'ai reçu mon OS comme permanent syndical, affecté à ce syndicat CEDEFS. Mmh. Ah, voilà, donc je suis le secrétaire général aujourd'hui. J'ai fait mes études à, à euh, l'école Cheikh Ahmadou Bamba, au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de, de Durban, où j'ai obtenu mon bac. Ensuite, euh, j'ai fait l'université. Un a deux ans, je sorti pour aller enseigner. Euh, après maintenant, dès que je suis devenu permanent, je suis allé m'inscrire à l'ENEA. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je suis médiateur pédagogique après quatre ans d'études à l'ENEA. Parfait. Merci pour cette présentation. Euh, vous êtes le secrétaire général euh, national de la SEDEFS. E euh, dites-nous euh, les objectifs de la SEDEFS, e c'est quoi Oui, SEDEFS, e euh, c'est un syndicat un peu spécifique avec une orientation spécifiquement mmh. la carrière de, de, des enseignants. Donc, nous nous orientons, nous nous spécifiquement sur les, la carrière de l'enseignant. partout où l'enseignant puisse être au niveau national, qu'on puisse s'approcher de lui, euh, voir quelle est sa situation par rapport à sa carrière, mmh. comment l'accompagner pour qu'il puisse avancer et que pour, pour qu'il ne euh, subisse pas, pour qu'il ne subisse pas, euh, pardon, les retard administratif euh, appelé lenteur administrative. Mhm. Donc on est toujours auprès des enseignants, on s'est organisé de sorte que partout où l'enseignant se situe au niveau national, qu'on puisse mhm. être à ses côtés, récupérer ses dossiers, les traiter et lui apporter les informations nécessaires à temps ici. Aujourd'hui, la CEDEF ne fait pas partie euh, du G7. Vous avez été aux élections de représentativité syndicale, n'est-ce pas? Dites-nous qu'est-ce qui n'a pas marché? Euh, tout à fait. Euh, nous, nous sommes, nous faisons pas partie du euh, mais nous avions bien travaillé quand même pour, euh, pour être représentatifs. Euh, nous étions très proches, nous étions à, aux environs de 8% et il fallait avoir 10% pour être représentatif. Euh, il y a beaucoup de quoi que sur, les, sur l'organisation des élections, mais faut pas revenir sur ça. L'essentiel est qu'on n'a pas été un syndicat représentatif. On a assumé et on a vraiment refait les chaussures et euh, se remettre sur le chemin pour attendre les autres élections. Et c'est sûr et certain que les élections à venir, nous serons un syndicat représentatif mmh. parce que nous sommes en train d'y travailler sur le terrain et ça va marcher cette fois-ci, Inch'Allah. D'accord. Aujourd'hui, euh, à part euh, le G7, donc il y a d'autres organisations syndicales qui sont là. Le G7 qui regroupe euh, les organisations syndicales les plus représentatives, euh, ça ne veut pas dire que les autres organisations n'existent pas. Est-ce que le G7 consulte les autres organisations syndicales pour aller euh, discuter avec euh, le ministre euh, tout à fait, ça n'existe pas. Le G7 ne consulte pas les autres organisations syndicales. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet d'autres groupes euh, d'organisations syndicales, les organisations ne voulant pas disparaître, donc euh, étaient obligées de se regrouper euh, pour avoir beaucoup plus de force et vraiment affronter le milieu syndical. Parce que le G7 euh, n'a pas joué son rôle. une fois après les élections, ils se sont dit que c'est les sept les plus représentatifs. Ils se regroupent entre eux, ils rencontrent le ministre entre eux Ils ne nous informent pas, ils ne nous avisent pas, donc on ne sait rien de ce qu'ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ne pas disparaître, nous étions obligés de nous organiser pour créer un autre groupe appelé le G20. Et euh, surtout, notons que le G7, euh, ils ne sont pas les plus représentatifs comme on, comme on le dit. Il n'y a que deux syndicats, trois qui sont représentatifs. Euh, tout le reste, c'est des, c'est, des critères qu'on a créés, on ne sait pas d'où. exemple, on nous dit que chaque syndicat arabe, dans, il faut un, un, syndicat arabe dans le G7. Et on a d'office... fait passer le syndicat arabe euh, qui a eu beaucoup plus de voix et c'est le Senelas FC qui n'a pas en tout et pour tout n'a même pas 1000 voix donc 400 euh, voix 500 voix et on dit que c'est un syndicat représentatif alors que la CEDEPS avait plus de 3000 voix et on dit que la CEDEPS n'est pas représentative donc ça pose problème euh, il euh, y a aussi le euh, le SAES le SAEMS, euh, SAEMS, SAEMS, je le syndicat des inspecteurs, mhm. euh, des inspecteurs, mhm. euh, qui ne font pas en tout et pour tout 400, 400 à 500 inspecteurs, et on dit que c'est un syndicat représentatif, ils sont dans le groupe. Mhm. Donc la CEDEPS est beaucoup plus représentative que beaucoup de syndicats qui sont dans le G7, donc les critères ne sont pas bons, mais je ne sais pas comment ça a été créé, on n'est pas au courant. C'est une organisation entre le gouvernement et, et, et, et, les syndicats. Mais tout ça laisse à désirer. Mais l'essentiel, ce qui reste à savoir, c'est que euh, réellement, à part le SAEMS, e le QSAMS, e mhm. euh, le SALS,

cent euh, admis. Euh, L'IA de Dakar est en tête avec 60,07%, suivi de l'IA de Matam, 56,56%. Euh, Ensuite, l'IA de Pikine, Guédiawaye et Rufisque avec 53%. Euh, quelle analyse de ces résultats? le terrain. Euh, d'égalité euh, sur le système scolaire. Donc les enfants n'ont plus la même chance. Donc euh, les enfants qui sont à Dakar sont privilégiés par rapport aux autres qui sont dans la brousse. Et ça, c'est le système, c'est l'organisation. On l'a toujours décrié. Et ce sont ces résultats maintenant qui commencent à se faire voir sur le terrain. Quand Dakar est en tête euh, devant toutes, toutes, toutes les autres régions, si vous voyez, après Dakar, on a Pékin, Guédiawaye, donc avant d'avoir les autres régions, ça veut dire que c'est à partir de ce moment où on a décidé de faire des cours en ligne, d'inscrire les enfants. Et tout le monde n'a pas cette chance Il y a des enfants qui sont en brousse et qui n'ont même pas de, de, connexion et qui ne peuvent pas bénéficier de beaucoup d'avantages euh, qui sont offerts aujourd'hui par le ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui se reflète sur les résultats que nous avons. Euh, mais tout ça, je pense qu'il faudrait nécessairement impérative, impérativement qu'on se rencontre, qu'on se regroupe, euh, qu'on se retrouve entre nous, entre acteurs, essayer de voir les véritables problèmes du système, euh, comment le programme, euh, la manière d'organiser les examens et, pour avoir des résultats beaucoup plus équitables. Mhm. que l'année dernière. Tout donc, à fait, donc euh, c'est une baisse quand même. Tout à fait, c'est une baisse. En plus, l'année dernière, on avait 50% et oui. Donc, ça veut que ça un peu baissé. le plus problème au Sénégal, c'est qu'on on, s'apaisantit souvent sur euh, les, les, les admis, cest de réussite. taux de réussite à à 50 pour cent mais quand le taux de à 48 pour cent il faut se dire qu'il de 52 pour cent si. et c'est ça le problème qu'est-ce qu'on va faire euh, pour vraiment rehausser le niveau des enfants et arriver à des résultats meilleurs euh, à, vu à ce, euh, sous cet angle on peut que c'est catastrophique parce qu'on doit avoir de, de, de réussite beaucoup plus de réussite que d'échecs Si le contraire se pose, il euh, y a, y a, problème. Et tout ça, c'est les problèmes du système éducatif euh, qu'on est en train vraiment d'accumuler, qu'il faudrait évacuer le plus vite possible. Mm-hmm. D'accord. Euh, L'IA de Kolda occupe la dernière place euh, du classement. Euh, qu'est-ce qui explique cela selon vous Est-ce le milieu Oui, c'est toujours euh, le fait que certains sont défavorisés par rapport au système, c'est ce que je dis. Parce que si vous allez à l'IA de Kolda, il y a l'IF de Velengara, il y a l'IF de, euh, de, de, de, de Medina Yorofula. Euh, Medina Yorofula est complètement inaccessible. Ils sont coupés du monde, de l'autre partie du monde. Ils savent même pas ce qui se passe dans le système. même les inspecteurs pour descendre à Medina Yoro Foulah c'est un problème une fois dans l'année ou deux fois dans l'année et ça suffit donc ça pose problème sur le plan et c'est ça qui se reflète sur les résultats maintenant il faudrait tout faire pour rééquilibrer pour que les enfants aient la même chance vraiment dans ce système éducatif hmm. c'est ça qui pose problème. Et il faut noter dans ces zones euh, euh, y a les abris provisoires, il y a des classes euh, double flux, les, euh, les nombres euh, des pléthoriques. Des, des hérités inaccessibles avec des abris provisoires. Des, un enseignant peut, peut quitter pour aller régler un, un petit problème, il revient un mois après parce que l'accès n'est pas facile, etc. Euh, le contrôle n'est pas régulier. Et ça pose problème. C'est des jeunes où il faudrait vraiment se réorienter par, par rapport à ces, à ces zones-là pour, pour revoir le système éducatif. D'accord. Mmh.

Euh, même si donc il euh, y a une baisse euh, du point de vue euh, euh, du nombre total d'admis, euh, n'est-ce pas là un paradoxe parce que il y a une baisse du nombre total d'admis, mais le nombre de mentions a augmenté. Tout à fait, tout à fait. je parlerai pas de paradoxe, je vais aller beaucoup plus loin. Oui. Et c'est comme ce que je disais par rapport à l'analyse sur les résultats. Quand on parle de taux d'admis, moi je parle de taux d'échec. Euh, c'est la même chose ici parce que les mentions cela nous interpelle c'est-à-dire il faudrait voir revoir la manière de euh, sélectionner de trouver les, les les sujets même des examens parce que ça doit être nivelé de sorte qu'un élève moyen puisse réussir à l'examen mais quand c'est le sommet euh, c'est de l'autre côté donc il faut être très très très bien pour s'en sortir. Mm-hmm. Et, et de ce fait, il y a beaucoup plus de mentions parce que les les les les les les, les doués, les intelligents, euh, ceux qui sont très forts, mm-hmm. ils, ils peuvent s'en sortir. Mm-hmm. Mais le le maxi le, euh, euh, comment dirais-je, la grande majorité des des des des candidats ne peut pas arriver à à à, à réussir même à l'examen parce que ce n'est pas un niveau moyen. Donc le choix des épreuves, ça pose problème. Il faudrait revoir cela. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de mentions que même d'admis, quasiment. Donc de mhm. manière euh, générale, vous voyez qu'il y a plus de mentions et il est difficile d'avoir euh, une, une, réussite euh, moyenne de sorte qu'on n'a même pas 50% de réussite au, au, niveau national, et beaucoup de mentions, c'est contradictoire. Donc ça, c'est le choix des épreuves qui est à l'origine de cela. Euh, des fois, c'est trop, trop difficile euh, au sommet, parfois. Par exemple, les mathématiques au CFE, c'était quasiment, les compétences, c'était quasiment... Euh, c'était quasiment euh, irrésolvable pour les, pour les, pour les enfants de SEM2. complètement euh, hors niveau, hors niveau. Donc il y avait beaucoup de zéro, beaucoup de 1, beaucoup de cinq beaucoup de 2, beaucoup de notes catastrophiques en compétence Alors que donc quand on réussit à, à, à ces compétences, automatiquement on peut avoir, euh, on peut être au niveau des mentions si c'était le BFM ou le bac. Mm-hmm. C'est ça qui est à l'origine de, de, de, ça. Donc il faudrait revoir le choix des épreuves mm-hmm. par rapport à ça. D'accord. Et on remarque également que les bien illustrées. Il de mentions bien et très bien du côté euh, des séries de l'État. Euh, donc on s'est orienté sur les bacs scientifiques au lieu d'avoir à chaque fois les bacs littéraires. Il y a beaucoup d'admis sur le plan Euh, littéraire, mais il faudrait maintenant beaucoup plus d'avantages aux séries scientifiques pour qu'ils puissent réussir. Et on a favorisé dans nos orientations les, les séries scientifiques, ce qui fait qu'ils euh, peuvent s'en sortir plus, plus facilement que les séries littéraires. Mhm. C'est ce qui est à l'origine de ces là Et que dites-vous des nombreux cas de tricherie qu'on a notés cette année au baccalauréat Oui, oui, oui, il y, a, de cas de tricherie et c'est comme ça chaque année. Hein. Chaque année au bac, il a beaucoup de cas de tricherie. C'est un examen vraiment très délicat. Mmh. Et malheureusement, c'est pourquoi il faudrait faire beaucoup d'attention, euh, donner beaucoup d'intérêt cet examen pour que surtout les surveillants qui surveillent, parce qu'ils sont dans une situation un peu catastrophique, et ils des risques. du matin au soir. Il y a beaucoup de tricheries euh, au bac et souvent ils sont mal payés, leurs déplacements, on s'en occupe pas, les corrections, les surveillances, très mal payés. Donc euh, de, de ce fait, il faudrait revoir vraiment cet examen. Mmh. Euh, maintenant, la tricherie, c'est toujours comme partout dans le monde. Euh,

Ouais, je pense que là aussi, il faudrait revoir les, les, les, les mesures, les mesures qui sont prises à chaque fois. Parce que le port de téléphone, le monde ne peut pas avancer qu'on reste sur place. On ne peut pas dire à l'élève de terminale qui va faire son bac que tu, tu, tu n'as pas droit à, à, porter ton téléphone. Il peut ne pas avoir droit à utiliser son téléphone. L'usage du téléphone peut être interdit formellement dans le centre ou bien dans, dans, dans, dans la salle. Mais euh, le port du téléphone, il est obligatoire actuellement dans ce monde-là. On ne peut pas dire à l'élève, euh, sous prétexte qu'il peut tricher avec son téléphone, qu'il ne faudrait pas le porter. C'est une obligation. Il faut les laisser, avec leur téléphone. Il faut qu'ils aient leur téléphone parce que dès, dès, la sortie du centre, ils ont droit euh, euh, aux communications. Ils peuvent appeler partout. Euh, pour pour pour pour rentrer pour euh, se, se localiser etc euh, c'est, c'est, le monde avance il faudrait avancer c'est à nous maintenant de voir quels moyens c'est ce que j'ai dit quelle stratégie mettre en place pour pouvoir vraiment veiller sur la surveillance euh, de sorte que ces téléphones ne puissent pas être utilisés Une fois qu'un candidat essaye d'utiliser le téléphone, mm-hmm. et à partir de ce moment, on dirait qu'il est en train de tricher et qu'il soit, qu'il soit mis hors de circuit. Mais ça, c'est des mesures très sévères. Euh, des enfants, des, des, candidats qui ont mis leur téléphone dans leur sac, certains, beaucoup de ces téléphones ont été éteints. Et on ne peut pas dire à partir de ce moment qu'il a l'intention de tricher et maintenant leur empêcher complètement, définitivement de faire le bac pour cette année. C'est des mesures très sévères, très sévères qu'il faudrait revoir. Il faudrait les revoir euh, parce que le monde avance. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Demain, on va dire qu'il ne faudrait pas venir avec les montres. la les montres le, même rôle que, que, que, que le téléphone. Donc, il faudrait veiller et changer les modes de surveillance

Oui, après, ils seront orientés en commission de discipline. Euh, la commission de discipline va siéger et mhm. voir qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ces situations. Mhm. Est-ce qu'on va les pardonner pour qu'ils fassent même euh, la session de remplacement mhm. octobre, ou bien ils vont faire le, leur examen l'année suivante, ou bien qu'ils seront définitivement exclus du système. Ça c'est la commission de discipline. Mais je pense qu'ils euh, vraiment te, tiendront compte de la situation et qu'ils sauront que la mesure est très sévère mhm. et qu'on puisse même leur, permettre de faire leur examen octobre prochain, Inch'Allah. jusque-là, aucune décision n'a été prise euh, en ce sens Jusque-là, la commission n'a pas siégé, donc aucune décision n'a pas été prise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils mhm. n'ont pas fait les examens. Euh, nous la recevons Mansour secrétaire général euh, de la CEDEF CDES, qui est la coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal. Euh, le ministre de l'Éducation nationale a reçu euh, des leaders euh, de syndicats d'enseignants. Euh, c'était dans cette semaine, Moustapha Guirassi a assuré sa volonté d'entretenir avec eux un dialogue permanent en vue d'un fonctionnement correct du système éducatif. Votre lecture là-dessus Oui, c'est une bonne initiative. Je pense qu'il faudrait vraiment se rencontrer très souvent, mhm. même nous au niveau du G20. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les autres syndicats qui ne sont pas du G7, mhm. on a formé un grand groupe au niveau du G20. Et il nous avait promis, lui, en tant que ministre, que de manière permanente, il va nous rencontrer, on va discuter sur les problèmes du système éducatif. Mmh. Euh, il nous a reçus une fois, on attend. Il a reçu le G7 mmh. dans la même semaine, il nous a reçus. Bon, il a encore reçu le G7, on s'attend à ce qu'il nous reçoive euh, encore pour qu'on sache réellement de quoi il s'agit, de quoi ils ont discuté et quel sera notre apport par rapport à la situation. Mmh. D'accord. Euh, cette année, on a noté une accalmie. Il euh, n'y a pas eu euh, de mouvement. Euh, qu'est-ce qui explique cela euh, Oui, il n'y a pas eu de mouvement. Il y, y, a le contexte quand même. Il y a le qui, a fait qu'on était dans un contexte tout à fait politique. Mhm. Et il faudrait pas perturber le système. Il fallait vraiment apaisé pour s'en sortir. Bon, il y a eu quelques perturbations, mais c'est pas méchant. De manière générale, vraiment, il y avait eu une accalmie, euh, vu le contexte. Donc, l'année scolaire, là aussi, juste après les élections, on a eu un nouveau gouvernement et il fallait prendre un peu de recul, euh, les laisser vraiment réfléchir, voir les, la situation, s'accaparer des problèmes et voir comment, comment, comment les résoudre. D'accord. Euh, les mutations d'enseignants, on en parlait également parce que ça pose problème euh, dans le secteur éducatif. À Tambacounda, par exemple, il y a eu plusieurs départs euh, que d'arrivées, rien que pour cette année dans cette localité. Ceci causera sans doute un déficit d'enseignants. Tout à fait, c'est ce que je disais. C'est-à-dire il y a des zones différentes. des zones appelées des zones déshéritées. Et ces zones déshéritées, les enseignants ne veulent pas y rester. Maintenant, c'est la politique étatique. Il faudrait voir comment faire pour encourager, pour motiver les enseignants et les encourager à rester dans ces zones. Euh, c'est pas facile, mais il faudrait une politique euh, discriminatoire, une discrimination positive, euh, donc qui permettrait à ces enseignants, une fois dans ces zones déshéritées, d'y rester. Mais sinon, ils ne voient aucun avantage de rester dans ces zones où ils ne peuvent pas s'inscrire à l'université, ils ne peuvent pas régler, gérer leur carrière correctement, rester là-bas sans aucune motivation. Donc, euh, ils préfèrent euh, euh, rejoindre le centre du pays. Mm -hmm. Voilà pourquoi. Et comment, selon vous, les motiver à rester dans ces zones euh, déshéritées oui, il y a plusieurs systèmes. On peut par exemple trouver des indemnités. Donc vous n'avez pas d'indemnité de déplacement déplacement. de déplacement par rapport. Euh, à la zone. non non indemnité non je parle pas de déplacement pour les examens vous dites ou bien les affectations des enseignants. les mutations. les voilà donc il y a pas d'indemnité aucune indemnité c'est-à-dire euh, euh est là il a le même salaire s'il est à Tamba que s'il est à Dakar. il a le même tamba s'il à, le même salaire s'il est à Louga que s'il est à Diourbel. Donc il faudrait voir par rapport à la localité comment motiver les enseignants. Par exemple, les enseignants qui habitent à Tamba, comment faire de bons logements euh, pour que euh, tous les enseignants y restent, habitent, euh, prennent leur maison, habitent dans ces maisons et, travaillent pour l'État de manière globale et toute leur carrière durant. Ils, ils vont pas bouger, on les fixe. Il y a aussi la possibilité de trouver des indemnités pour ceux qui sont euh, dans ces zones déshéritées. Et ils, vont, ils seront encouragés et ils auront le courage d'y rester. Mais pourquoi Dakar et Thiès posent souvent problème c'est tous les enseignants qui veulent venir. Oui, c'est ça, c'est là où il y a beaucoup plus d'avantages. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que être à Dakar, tu es tout près de l'université. Moi, j'ai bénéficié de, du, du, fait que j'étais à Dakar. Je m'en suis profité pour euh, euh faire le concours de mhm. l'ENEA, aller à l'ENEA, euh, faire mes études mhm. supérieures et devenir médiateur pédagogique à la hiérarchie A. Mhm. Euh, donc, tu ne peux pas l'avoir quand tu es à Tamba. Euh, c'est pas possible. Euh, voilà, c'est des avantages. À Thiès aussi, même chose c'est comme si on est à Dakar, on peut se déplacer, faire ses cours à l'université Cheikh Anta Diop, revenir, etc. Euh, il a beaucoup d'avantages. Et ailleurs, euh, c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi très souvent, euh, c'est trop serré entre Thiès, Dakar, parce que c'est trop proche des universités et D'accord. comment se passent les mutations d'enseignants Bon, c'est de manière démocratique, transparente. Mhm. Auparavant, il y a tout, toutes les organisations syndicales qui étaient présentes, avec toute l'administration, les IF, les IA, les académies. Donc tout le monde était autour de la table et pendant une semaine, deux semaines, on faisait le mouvement mm. euh, poste par poste jusqu'à la fin. après, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de dépenses. L'État ne pouvait plus supporter les dépenses. On a diminué et maintenant, c'est les syndicats représentatifs euh, qui s'y présentent. Mais une fois sur place, euh, il y a une manière démocratique et transparente. Il y a l'administration, il y a les syndicats euh, qui sont autour de la table. Et poste par poste, on va postuler. Donc, chaque, chaque enseignant a le droit de, après deux ans, de demander un poste n'importe où au Sénégal, euh, par rapport à ses points. Il y a un nombre de points, il y a le grade, et maintenant par rapport à son grade et son nombre de points, et euh, il va compétir qui va gagner le poste de manière démocratique. Celui qui gagne, il gagne, et l'autre, il va postuler pour un autre poste, sinon, tu es battu. Et comment euh, ils obtiennent ces points-là, les enseignants Les points, c'est par rapport à l'ancienneté dans le corps, l'ancienneté dans, dans le poste même où ils, où, où ils sont. Donc, euh, il regroupe. Il y a aussi les notes administratives euh, qui, qui, qui, reçoivent dans, les postes. Il y a aussi les visites des, des inspecteurs avec des notes octroyées. Tout ça, ça, influe sur, le nombre de points. Après, on totalise tous les points et c'est le nombre de points qui, qui permet à l'enseignant de compétir par rapport à ses égaux. Il faut euh, combien de points pour pouvoir compétir Non, il n'y nombre de points limite, euh, minimal ou mm-hmm. Bon. Euh, mais en général, pour les postes de responsabilité ou des postes de choix. Mm-hmm. Pour les gagner, en général, il faudrait avoir plus de 100 points. Euh, maintenant, au-delà, on peut même gagner des postes mm-hmm. avec 80 points, du poste choisi, demandé. On peut même demander un poste qui n'est pas demandé par un autre. Et avec 40 points, D'accord. Euh, Mansour Ndiaye, cette année, euh, le certificat, l'entrée en sixième, euh, le BFM ont été décalés. Qu'est-ce qui explique euh, ces deux reports euh, Est-ce euh, qui n'est pas atteint ou bien Bon, c'est inexplicable quasiment parce que ces dates ont été fixées par décret présidentiel. Euh, donc ça ne devrait pas être repoussé, c'est une première, mais je, de toute façon, on peut comprendre dans la mesure où, il y a, comme je l'ai dit, un nouveau régime qui est venu et il faudrait peut-être s'accaparer des dossiers, savoir quelle est la situation et Et ils ont beaucoup changé, même il y a par exemple au, euh, au CFE, les enfants qui n'avaient pas d'extrait ou autre, il faudrait, fallait leur les laisser faire, faire, faire, faire les, les examens et ensuite régulariser leur cas de manière ipso facto. Mmh. Euh, donc tout ça, c'est un calendrier. Mmh. Il faudrait jouer sur ça. On peut comprendre que par rapport à ça, ça peut permettre parfois de, de décaler un peu, un peu les, la date des examens. Mmh. Mais de toute façon, c'est un décret présidentiel et l'idéal serait qu'une fois que c'est fixé par année, qu'on qu puisse respecter ces, ces, ces dates. D'accord. Euh, donc euh, ce n'est pas dû au quantum, vous avez atteint cette année le quantum horaire euh, Oui, le quantum horaire, bon, ça fait des années, on l'attend, on l'atteint pas, on l'atteint pas, on l'atteint pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher du, du, horaire, parce que le quantum horaire au niveau international est actuellement à 900 heures, 900 heures pratiquement par, euh, pour l'année. Et nous, on arrive rarement à 800 heures, donc on peut pas, on peut pas

où en sont les préparatifs Tout est déjà fin prêt pour aller aux examens mm, Oui, le matériel est sur place. Euh, comme d'habitude, on a l'habitude euh, d'organiser des examens ici au Sénégal. Mmh. Ça mhm. pas problème. Euh, tout y est sur place. Et mhm. on, les surveillants sont là, les enseignants sont prêts, les candidats sont prêts, le mhm. matériel est dans des, des euh, centres d'examen. Et vraiment, on attend que la date pour faire passer le BFM de manière vraiment victorieuse. Vous avez une idée sur le nombre de candidats cette année euh, Cette année, pas encore, pas encore. On n'a pas encore fixé le nombre de calendriers, mais mm. comme, chaque année, c'est dans les 100, 100, 100 et quelques mille, 100 000, 100 000 candidats. Mm. Mm. vous dites quoi aux candidats Bon, euh, les souhaiter bonne chance. Mm -hmm. Bonne chance et d'éviter vraiment, surtout la tricherie, mm -hmm. euh, qu'on ne nous vraiment euh, s'étiquette pas de pays où il y a beaucoup de tricherie ou autre. Il faut faire très attention par rapport à ça. Euh, et je dis surtout aux surveillants d'être plus Euh, intelligents par rapport aux candidats, mmh. Euh, de les accompagner parce que c'est pas évident et leur souhaiter bonne chance pour qu'ils réussissent à un taux très élevé. Mmh. D'accord, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, semble respecter ses engagements vis-à-vis -vis des enseignants. Il a apuré un passif important pour les professionnels euh, de la CRE que vous êtes. Euh, qu'est-ce que vous en pensez quand je parle de passif euh, Ce sont les arrêtés relatifs aux examens professionnels de catégorisation, des décisions de nomination et des arrêtés. Oui, oui, il a beaucoup fait par rapport à ce passif. Euh, ce, ce qui le en ce qui le concerne, mm -hmm. il nous l'avait promis et il l'a fait. Et, parce qu'il y a des actes qui étaient là depuis un an, deux ans, qui mm -hmm. n'ont pas été signés, qui avaient un problème de signature, c'est des arrêtés. Mm -hmm. Et il a dit que tout ce qui dépend de moi, si c'est une question de signature seulement, vous me les mettez sur place, euh, vous me faites du thé, du café, toute la nuit, je passe la nuit à signer. Et il l'a fait en 16 jours, il a signé plus de 4000 actes sur les 6000 actes, 7000 actes. Donc c'est déjà quelque chose et il continue à signer. Mais il reste beaucoup à faire parce que le problème le plus crucial dans ce système éducatif euh, et qui fait pleurer plus d'un, c'est vraiment le problème des, des décisionnaires. donc c'est un problème très sérieux je sais pas pourquoi à chaque fois on le repousse à demain après-demain lundi prochain mois prochain ça fait quasiment deux ans leur carrière est bloquée ils n'avancent pas hmm. ils n'avancent pas pourquoi parce que on dit que c'est des décisionnaires il faudrait arrêter, attendre qu'on règle leur cas hmm. euh, alors le ministre a fait Euh, euh, un projet euh, de décret. Ah, ça a été fait. Et ce projet de décret était arrivé jusqu'à la table du, du président Macky Sall d'antan. Et ça n'a pas été signé, ça a été bloqué. Jusqu'à présent, les décisionnaires attendent, ils n'avancent pas. Et à l'arrivée du nouveau président Diomaye, moi je me disais que dès qu'il arrive dans la première semaine, eh, il va signer ce, ce, ce décret et mmh. ce sera un ouf de soulagement pour le système éducatif. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Jusqu'à présent, on, on attend un beau jour pour régler cette situation très difficile et qui vraiment gangrène tout le système éducatif. Les mmh. enseignants sont fatigués, les décisionnaires sont très fatigués. Mm. Et chaque jour, ils partent à la retraite. Chaque jour, c'est ça, c'est ça le mal. Mmh. nous sommes en train de faire cette émission-là, il y a des enseignants qui décrochent aujourd'hui. Il Il y a des décisionnaires qui vont décrocher lundi, etc. Et ceux qui sont là pour un an, pour deux ans, ils nous disent à chaque fois, est-ce que nous, on, on, fera partie de cette décision mmh. Qu'est-ce qui va se passer et En tout cas, c'est très injuste et il pour régler cette situation carabinée. Maintenant, il nous avait dit que ça ne dépend pas de lui seul parce que c'est transversal. Il faudrait le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique et même du Travail. Mmh. Mais il disait que de toute façon, il va faire ce qu'il peut faire pour qu'ils pour qu'ils se regroupent tous ensemble, qu'ils se rencontrent, essaient discuter et de trouver une solution ensemble par rapport à cette situation. Mhm. Justement, vous parlez de décisionnaires. Euh, selon le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, un atelier sera euh, consacré à ces décisionnaires euh, dans les jours à venir et va réunir les syndicats d'enseignants donc qui exigent de prendre part à ce conclave. Ces décisionnaires, c'est ce qu'ils veulent pour trouver une solution à leur précarité. N'est-ce pas là une lueur d'espoir? tout à fait il y a une lueur lueur d'espoir l'essentiel c'est c'est de faire vite moi ce qui me dérange c'est vraiment la lenteur par rapport à cette situation là euh, attendre lundi attendre semaine prochaine mois prochain je pense que comme je l'ai dit chaque jour c'est des décisionnaires qui partent à la retraite et c'est un droit c'est un problème très difficile euh, à vivre et ils sont en train de le vivre c'est une inégalité, c'est une injustice. Ils sont dans un établissement, ils ont le même diplôme parfois, beaucoup, beaucoup plus diplômés que les autres enseignants de, de, de, de du même établissement. Mm -hmm. Et malheureusement, ils perçoivent euh, moins ou bien ils parviennent à... Ils sont moins gradés. Pourquoi Parce qu'ils sont décisionnaires et qu'ils n'avancent pas. Ils ont leur diplôme et tout, ils ne peuvent pas avancer. Mm-hmm. Et pire, quand ils partent à la retraite, ils n'ont même pas de pension. Pratiquement, mm-hmm. ils ont des salaires de 70 000 francs, 65 000 francs à la mm-hmm. retraite. C'est impensable, c'est inadmissible. Je pense qu'il faudrait faire vite, quoi advienne, euh, pour régler ce problème-là. D'accord, mais dites-nous, qu'est-ce qui bloque euh, les décisionnaires dans Oui, ce qui leur bloque. Par exemple, euh, quand on est enseignant, on est instituteur, supposons instituteur adjoint. Mmh. Mmh. Maintenant, on doit changer de corps pour être instituteur plein. Et là, il faudrait un diplôme. On dit il faut un CAP, certificat d'aptitude pédagogique. Et le décisionnaire, il règle le CAP en même temps que le fonctionnaire. Il a, des fois même, il obtient le CAP le premier que le fonctionnaire. Et on son, son, son dossier de reclassement pour, pour le reclasser dans le corps des instituteurs, on bloque tout par, uniquement parce qu'il est décisionnaire et le décret n'est pas réglé. Mmh. Le fonctionnaire, on le reclasse, il devient instituteur plus gradé que, mhm. que, que le décisionnaire. Et c'est la même chose encore pour, pour, pour, le collège, pour les, pour les lycées. Mhm. Euh, Quelqu'un qui a son KM, qui veut être reclassé euh, comme KS, comme professeur de l'enseignement supérieur, euh, alors il, a, il, est bloqué parce qu'il est décisionnaire. On ne peut pas lui faire ce projet de reclassement. Il mmh. attend maintenant que le décret soit réglé. Mmh. Voilà ce qui plombe leur carrière depuis deux ans. Il ne peut pas avancer. il reste sur place. Mm -hmm. Tu as ton diplôme, tu as ton dossier, tu as tout, mais tu, tu dépends maintenant d'un décret qu'il faudrait changer ou pas. Des fois, tu attends ton dossier, reste, reste là en suspense jusqu'à ce que tu partes à, à, à la retraite. Donc, mm -hmm. c'est très difficile. Mm -hmm. C'est déplorable. Voilà, euh, les lenteurs administratives également, euh, le ministre Moustapha Guirassi est en croisade contre ce fait car ça plombe euh, votre avancement professionnel par ricochet votre carrière. Tout à fait, tout à fait. Lui, il a fait ce qu'il pouvait par rapport à ses lenteurs administratives, c'est ce que j'ai dit. Ce qui dépendait de lui, c'était ces arrêtés-là qu'il pouvait signer. Maintenant, au-delà de cela, l'enseignant est dans la bourse, il doit être intégré dans la fonction publique. Ça, c'est le de la fonction publique. Et entre la fonction publique, les finances et la primature, c'est là où, où il y a le plus grand blocage. Et ça ne dépend pas du ministre de l'Éducation. Et c'est très déplorable, ces lenteurs administratives. Euh, tu déposes ton dossier, on te fait suivre un circuit vraiment insupportable. il faudrait déposer à partir de l'IF, l'IFIA, ce même dossier va aller au ministère de l'Éducation, ensuite à la fonction publique. Mhm. Une fois à la fonction publique, on te fait un projet d'acte d'intégration. Et ce projet va faire encore 11 bureaux entre le ministère de la fonction publique, le ministère de, euh, des Finances et, le ministère, et la primature. onze bureaux pour arriver à une signature du, du ministre, à, un à une numérotation de l'acte, mhm. euh, pour que l'acte soit disponible. Mhm. donc vraiment ces lenteurs-là, ça pose problème. Surtout lorsqu'on a changé maintenant la girafe, il y a un autre logiciel, euh, euh, girafe euh, qui bloque, plombe toutes les carrières. On ne peut pas avancer par rapport à ces girafes 2, donc euh, ça n'avance pas. Euh, on dit que les travaux ne sont pas encore prêts, ils sont en de faire les travaux, c'est pas fini, ils sont dans les travaux. Et tout est bloqué, les gens attendent, ça n'avance pas. Des fois, on vous dit que votre projet est à la masse salariale. Non, c'est devenu, il avait erreur, c'est devenu au niveau euh, du bureau. Ensuite, ça refait circuit, ça est au budget, revient. Donc, ça tourne entre, entre, entre ces, ces, ces, bureaux et il n'y a aucun acte concrètement qui, est sorti par rapport à cette girafe. Donc ça pose problème. D'accord. Euh, trois mois que le ministre Moustapha Guirassy a été porté à la tête du ministère de l'Éducation nationale, comme d'ailleurs le président de la PUC, Bassirou Diomaye Faye. euh, vous avez confiance, euh, vous gardez espoir euh, que ça ira mieux dans le secteur de l'éducation Oui, on a confiance, on a confiance parce qu'il a commencé, qu'il a commencé, il a montré il a de manière concrète, il a posé même. des actes quoi, qui nous donnent espoir parce que euh, le G20 est resté là pendant combien d'années Plus de 5 ans, 7 ans, le ministre a refusé de les, rencontrer parce que, dit-il, voilà, il ne travaille qu'avec le G7, c'est les plus représentatifs. Et ça a été un facteur de Euh, dans le système. Dès son arrivée, il a pris son engagement, son courage entre les deux mains et il, il a reçu euh, le G20. Donc ensuite, il nous a promis de signer les arrêtés qui dépendent de lui. Il l'a fait. Euh, il nous défend encore euh, devant les autres ministères pour que ces lenteurs administratives soient vraiment débloquées. Donc on a espoir par rapport à notre ministre. Euh, il pose des actes vraiment qui nous rassurent et nous croyons que nous allons y arriver s'il continue dans cette lancée. Le président de la République, même chose, parce que ce qui nous pose problème au Sénégal, ce n'est pas un problème d'études, de, de diplômes, de connaissances, euh, de ressources humaines. Notre véritable problème, c'est ce qu'il a posé sur la table. Donc, mhm. c'est ses orientations. Il dit qu'il est là pour djubal djubanti. Mm -hmm. Et c'est ça qui pose problème au Sénégal. Mhm. On a nos ressources, mais les ressources sont pillées. Euh, des ministres qui s'enrichissent, des directeurs qui s'enrichissent euh, sur le dos des euh, populations. Et ça a toujours été comme ça. S'il est là, Euh, pour régler cette situation, je pense que le reste, ça pourra être supporté et ça va aller. Ça va mm. aller. Vraiment, il pose des actes qui nous rassurent et nous croyons que ça va aller de manière générale euh, au Sénégal. D'accord. Euh, vous êtes une organisation syndicale, la CEDEFS. E e Quelles sont vos doléances euh, Bon, nos doléances, c'est, notre première doléance actuellement, c'est le problème des décisionnaires. Mmh. Et je l'ai toujours dit et répété. il faudrait, même si on pouvait régler ce problème et laisser tous les autres problèmes jusqu'à l'année prochaine, c'est pas grave. Nous, on peut supporter. On peut À part ça, maintenant, il y a les lenteurs administratives et y la formation des enseignants. Euh, comment faire pour appuyer les syndicats et afin qu'ils puissent vraiment former pleinement et avec plénitude les, les enseignants qui sont dans la brousse. Mhm. Euh, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de formation. Les enseignants aujourd'hui ne maîtrisent plus leur carrière, mhm. comment avancer, euh, quel dossier fournir, par où passer. Euh, ils sont bloqués un peu partout à Salemata, à Matam, à Linger. Partout, les enseignants sont dans la brousse. Ils se mhm. décarcassent, ils enseignent, mais ils ne pas. Euh, espérer une carrière avancée. Alors que l'enseignant n'a que sa carrière. Si sa carrière est bloquée, tout ce qu'il puisse faire, ça va le rattraper hier, mm. demain, Inch'Allah. Mm. Donc, euh, vraiment, je suggère à ce que leurs problèmes soient réglés qu'ils puissent être formés. Et ça, c'est le rôle des syndicats. Euh, malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens pour mm. assurer cette formation. Et je crois que l'État doit les appuyer sur ça, parce que mmh. c'est à lui, c'est l'État qui doit former les enseignants. Mmh. Malheureusement, on recrute maintenant sans formation. On recrute et directement on affecte sur le terrain. Mm. Alors on bloque la carrière des enseignants de manière injuste, des enseignants qui font 8 ans sans avancer, qui ne savent pas ce qu'il qui ne peuvent pas téléphoner, qui ne peuvent pas régler leur situation. C'est vraiment catastrophique, c'est déplorable dans la brousse. Donc, euh, vous n'êtes pas appuyé financièrement euh, les organisations syndicales Non, du tout, non, du tout. On n'a que nos cotisations, 1000 francs, 1500 francs par, euh, par, par adhérent. Euh, maintenant, plus il a, y a, y a d'adhérents, plus il a du travail à faire, et ça pour le fonctionnement du syndicat. Euh, ça ne peut pas faire grand-chose par rapport à la formation des enseignants dans toutes les localités. Mmh. Donc je pense qu'il faudrait un appui de l'État euh, pour que cela puisse être assuré, parce que c'est impératif. Mmh. C'est impératif. Mhm. D'accord. Merci euh, Mansour Ndiaye. C'est déjà la fin de cet entretien. Votre mot de la fin, c'est quoi euh, Vous remercier, Adja vraiment vous remercier de l'invitation. J'ai été vraiment très content d'être invité dans cette émission euh, de haute classe. Euh, vraiment, et féliciter les enseignants d'avoir vraiment assuré l'année scolaire euh, qui vient de qui vient à sa fin comme ça avec les examens des BFM, les encourager à vraiment, comme d'habitude ils le faisaient, assurer l'examen des des du BFM pour terminer en beauté cette année scolaire. Vraiment, je vous remercie et je vous félicite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mansour Ndiaye, je rappelle que vous êtes le secrétaire général euh, de la CEDEFS, qui est la coordination démocratique euh, des enseignants et formateurs du Sénégal. Merci pour le déplacement. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Bachir Sissé, merci à Diawo Diallo pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.